boo làmbee xolam ak yëg-yëgam fees na dell dell dell ak Serigne Touba te lool yi lañu Cheikh Abdoul Ahad mii woowee waaye nag ñu bàyyi xel tawféex goo xam ni sëriñ bi daf ñu ko faggul te tawféex googu nag juddoo ci liggéey bii tawféex googu mooy lan mooy këru xaside gi nga xam ni Cheikh Abdoul mbàkk mii taxawal na ko am yéene légal ci Serigne Touba tànn ko bokki taalibe yépp bu ñu xooloo mbooloo mi teew ci jotaay bi tey ak ñu ñuy topp en direct ci télévision Lamp Fall wala di ñu déglu ci rajo bi wala dañu topp sur internet yaakaar naa ñooñu ëpp nañu ci këru xasida gii sëñ Abdoulaye naal te yéene ko murid yi foofa nag danaa fa def benn leeral bu bu bu diggu doomu. ndax liggéey yi ak liggéey yi dafa am solo ndax këru xasida gii waxoon naa ko fi at yi jiitu ma ne ko loolu sunu borom tawféexal la ndax ma ne ko ci Cheikh Abdou Lahad lañ njëkkee dégg mu taxawal këru alxuraan waaye nag ma ne damay jàpp ne ne tawféexu Cheikh Abdou Lahad moo ragalal ba ci yow mu yankawal la liggéey boobee nga am tawféexu nag taxawal ko waaye li ci mat a leeral laata ñoo ñëw ci jëmmi liggéey bi ak soññe ko sëriñ bi ba ko suñu borom tawféexalee liggéey boobu mu waxtaanee ca kilifa bi mu ci war a waxtaanal jaar ko ca bunt ba mu ko war a jaar muy ko fi nekkal sëñ Tuubaa waaye ci diggante boobu foo ñu leeral ci tuuti ndax ku ne xam na bis bii mi ngi ko tàmbale woon ci ndigalal Cheikh Madou Lamine yàlla na suñu borom dool ni ngërëmam ak yërmandem mu ànd kook moom ñaanal ko ci ba nopp nag gunge ko ci ci seer ak ci baatin ba ni Cheikh ba ni sëñ Cheikh Sidi Muxtaar ñooy wéyal loolu nga xam ne nag lenn ci meññeer ci sëñ Cheikh Sidi Muxtaar la génnee bokk na ci këru xasida gi nga xam ne bis bi it ginnaaw bi mu koy defee ci ndigal Cheikh taxa yàlla na fi yàgg te da koy defit ci kilifteefu sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ci kilifteefam loo koy defee waaye nag mu di ko ànd ak bokkam di léppam di sëriñ Amsatu Mbacke moom sëriñ Chouaib waaye nag ànd ko waa kuréel kenn sëriñ Tuubaa ak mboolem ak lu xaside léegi ci meññat boobu bi bi mu feeñee mu jaare ko ci fi mu ko war a jaare ci ay kilifaam dafa dem ci sëñ Cheikh Sidi Muxtaar moom la dajal xamal na ko damaa bëgg a taxawal kër goo xam ne këru xasida lay doon waaye nag kër la goo xam ne nag kër la la goo xam ne nag dugg kër gu ñu doon waaye moomeelu sëñ Tuubaa lay doon déglu bu baax li ma leen wax na kër la goo xam ne du kër gu ñu doon waaye moomeelu sëñ Tuubaa lay doon sëriñ bi wane ca mbégteem soññ ko ci waaye yamu ca dama leen a bëggoon bu fekkoon leneen da ko tax a jóg bi mu ko waxee sëñ bi am na lu ko sëñ bi junj waaye da koo xamal ni ko dama amoon ay pàkk yu ma sëriñ tubaa joxoon. ma bëggoon koo jaayante nag jox ko addee sëñ Tuubaa kon moom bi mu ko xalaatee ba mu ci digg rek la tàmbali bi sëriñ bi yéenee leneen yi mu ne ko sëriñ bi damaa bëggoon nga ñaanal ma ndax xam ne ne ñaan gi mooy loo xam ne bu xasee ba dal mën naa àgg fépp ba mbir yëpp gën cee jariñu kon damaa bëgg wax ne bu doon aw suuf suufa ko tax a jóg kon ca boobee dana dana dana dana jël yeneen suuf waaye dafa ne li ma sëriñ Tuubaa jox te comme lii moom laa ko defal jox naa ko kon bu doon tamit leneen la ko tax a jóg bi ko sëñ bi waxee di ko wax na ko sëñ bi ñaanal ma kon day jublu ca loolu waaye ñaan gi la sàkku ngir lan ngir njariñul murid yi liggéey boobee nag bokk yi mi ngi bëgg a yàgg te axlu xasida xajuñu ci xajuñu ci kër googu nu bàyyi xel nag li ko tax a jóg mooy mu nekk kër goo xam ne daara lay doon ñu di fa jàngale ñàngalum sëñ Tuubaa di fa yare yarub sëñ Tuubaa te bu ñu nee yarub sëñ Tuubaa mooy lislaam bu ñu nee ñàngal sëñ Tuubaa mooy lislaam ci biir lool yi nag dafa bëgg gone yi ñu di leen gàttandu te bu leen gàttandoo kon mel ni loolu rek ko tax a jóg mu doon barab boo xam ne dañ fay jàngale xasida dafay yar gone ci njàngalem diine nga xam ne dana am jàkka am daara euh, ba noppi nag am bibliothèque boo xam ne dañ fay dañ fay dañ fay dañ fay dañ fay dañ fay euh, euh, dañ fay dañ fay dañ fay saytu barkelu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci tedd gi nga xam ne dafay nekk patrimoine u Serigne Touba loolu moo taxoon nag ñu bëgg balaa sëñ bay jël kàddu ndax sëñ bi dafa war a jël kaddu ku mel ni sëñ Xaarim Dia ak sëñ Xaarim Safar ak sëñ Abdoulahad Lo ñu bëgg mbirut yi fi teew yépp kenn ku nekk làmb jibaam ñu teg ko fii na murit yooyu jóg sëñ bi nañu may loolu xam nañ ne sëñ bi yittewoon na ko waaye jarul benn murit bi jóg ñi yor liggéey boobu nañ jege mbooloo mi sëñ bi loolu dañ ko koy ñaan rek sëñ Mohamed ndax xam nañ ne bëgg war naa jóg waaye dañ koy ñaan loolu ndax ci liggéey bi la ci liggéey bi la ndax damay wax ne bisu xaside bi moo jur këru xaside gi kon bu ñëwee ci bis bi taxawaayu murit yi war naa feeñ ci bis nag wax na ma sànq ne murit yi ci jëfoon daaw ñu ngi leen di sant sëñ xaarim ja wax na ma ko léegi ndax nee na soññeeb daaw bi yégee na ci am na murit yi dox ay jéego waaye nag balaa ñoo gëm ne nag bi takku na buñ fi accès déwén incha allah dañ naan liggéey bi sotti foofu la war a toll kon sëñ xaarim na ñi yor liggéey boobu nañ jege murit yi ñu làmb sëriñ ji ba ñu dajale liggéey bi bu ñu fi jógee mën a wéyalaat liggéey bi kon xam naa ñu may ñu as niir rek balaa sëñ bay jël kaddu way laa ñu jox sëñ bi ci diggante bi mën na fee jël kàddu mbooloo may jege ñu dajale liggéey bi su noppee ñu jox waa euh, kuréel jësun bu Masaalikul Jinaan ak waa Spirituel Daaru Xudoos ak yeneen mbokk incha allah mu mel ni sëñ Moussa Sène tamit teew na fi gis nañ ko waaye ñu déglu sëriñ ba noppi incha allah